gis naa ko ci benn site <coughs> kooku lañuy ñuy wax transgenre mooy koo xam ni góor la sax wala jigéen mm-hmm. bëgg soppi boppam def ko beneen sexe bi beneen sexe bi mm-hmm. euh, loolu yëpp ci ñaaw jikko la ndeysaan ak tamit euh, <coughs> sëñ Mansour <coughs> ñu baal ma dafa am loo xam tam lu ñu war a bàyyi xel la mm-hmm. gis nga euh, façon nit yooyu ak comportement yooyu bu ci nekk tamit da ngay seet bu baax nit ko kan la Euh, fan la jóge euh, ak jaar-jaaram di nga comprendre lu bari euh, ci ay càggante ak yu baree bari kon boo tax kooku loolu mu def dafa def loo xam ni dafa xew ci jamono tey boo demee Europe da ngay sax waaru États-Unis temps yëpp foofu débat fa nga question boobu question avortement médicalisé question PMA jur ay doom léegi chaque semaine nga dégg débat bi ci pays yooyu donc léegi mooy seen vrai problème mooy soppi lépp loo xam ne rek noonu la ko diinee tërale woon ci wàllu euh, góor ak jigéen ak wàllu sëy góor ak jigéen ak wàllu famille mm-hmm. ak wàllu jikko moo tax fi nekk nii lu àdduna bi di gën a avancé dana gën di metti nag moo tax fi nekk réew jullit bu ñu organisé wul boole seen doole ah euh, agenda bi dana leen lekk benn par benn parce que réew jullit suñu bëggee topp tubaab yi ci àdduna kon tam tubaab yi foog ñu dugal li nga xam ni ñoom moom lañ gisee ni ku bëgg a nekk nit mel ni ñoom moom ngay doxal wala tey ji pays arabe yi sa yaram day daw eh, alal bi ñu am yëpp lenn rek lañu bëgg fi nekk yi mooy diir mbagg eh, tubaab yi eh, lépp loo xam ne tubaab yi dañ ko doon organiser ci wàllu noos ak yu ni mel tey boo demee rawatina ci pays golf yi ñu ko fay organiser mhm. boo jëlee même fi mu nekk par exemple Arabie Saoudite nga xam ni les deux lieux saints fa lañ nekk mais da nga gis ne tey ji ñi ko yor daanaka ñu ngi dindi ndànk-ndànk lépp loo xam ni dafa taxoon benn waaye doon na ma ko wax mu ne ma au moins ku bëgg baax sax nga mën a dem màkk baax fa tuuti ak madina dellu si waat mm-hmm. mais léegi mm-hmm. waaw léegi même foofu léegi chaque jour nga dégg ci presse bi euh, ñuy dindi loo xam ni da nga naan lu tax ñu dindi ko génewul kenn foofu euh, ma joxe benn exemple mm-hmm. euh, temps yi la ñu wax foofu ne dafa am ay kafe public ah foo xam dañ fay toog nii di naan kafe nii et dafa nekkoon yoo xam ni amul mixité am loolu charia noonu la ko bëggee charia bëggul ixtilaat Euh, góor ak jigéen ñi ay mukalaf jaxasoo noonu ak wéet donc dañ doon wax ni kafe bii ay famille rek ñoo fay nekk donc nit ak soxnaam ak seen doom ñuy ñëw ñooñu rek ñoo fay nekk xam nga dafa nekk lu sain mm-hmm. lu baax ndeysaan lu yiw da ngeen ñëw toog ci kafe bi comme suñu genre restaurant ki nii toog commandé moom neex leen ngeen taal seen oto euh, dem léegi nag yeneen kafe yi nga xam ni ay célibataire mën nañ faa dem ak ay jeunes yeneen la mais xoolal temps yi ñuy wax ne léegi dañu def benn loi wax ne léegi lu tax léegi ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy beral famille yi benn café <laughs> célibataire nañ bàyyi rek ñëpp ñëpp gis nga. Mhm. pourtant loolu du demande sociale. c'est-à-dire voilà waa réew ma miin nañ ko gis ci seen bopp. déranger du déranger wu leen. pour lan pour kon kon kon ñan kan ñu bëgg loolu. image yu mhm. Europe lañ bëgg mu rafet ci ñoom seen image rafet ci force idéologique yi nekk Europe te di leen wax da ngeen tardé surtout nag gis nga jigéen. Mhm. da ngeen tardé surtout ci wàllu jigéen. te pour ñoom tardé ci wàllu jigéen mooy tant que mayuñ jigéen fu góor toog mu toog Euh, jaxasoog moom et cetera ne ko jàkk nii pour ñoom ba tey joxuñu euh, jigéen àqam te pourtant toujours dama leen ko wax ma ne su jigéen toogee ne góor toog ne jàpp ne dañoo tooñ jigéen ne dañu tooñ góor ah <laughs> waaw jigéen bu am métier def métier euh, jigéen bu bëgg jaay ci marché bi dem jaay loolu doyul déedéet doyul de mhm. waaw foog ñu am ci leneen kon nag nga gis ne agenda la gisoo LGBT plus plus boobu yu bëri la transgenre ci la bokk donc góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen ah góor boo xam ne mën na sëy ak jigéen mën na sëy ak góor jigéen boo xam ne mën na sëy mën na ak yoo xam ne tudd ko sax laa la wax dafa doy waar mm-hmm. moo tax ñu def sax plus bi maanaam de yëfu seetaane amul fu mu yem mm-hmm. donc euh, sénégalais boobu waaw ndeysaan moom tamit dugg na ci yooyu mm-hmm. parce que mu ngi fréquenté ay milieu euh, yoo xam ni euh, jàpp na ni mën na faa doxal loolu jàpp nañu tamit mën na cee am alalam gisoo ñu naan ndax na góor ñu bëri. Mhm. et cetera et cetera kon wàcc na àndam mais comme ni ma la ko waxee rek kaa yu mel noonu tamit tant que xamuloo dëgg-dëgg tam waa ji kan la fan la bàyyeekoo est Europe la dafa faa yàgg wala dafa jékki-jékki daw dem fa. Mhm. Euh, et cetera doo ko xam mais ci principe bi daal li ñu war a xam mooy li yëpp mooy wane encore rek ni menace au agenda LGBT. Euh, Q plus <coughs> mi ngi fii man am na ay at. ay journalistes yu jigéen jóge ba Belgique ñëw fii euh, di ma defal interview dañ ma wax ne dañ may laaj parce que mm-hmm. Belgique mm-hmm. dañu gis ne léegi Sénégalais yu bëri yu fay ñëw mm-hmm. euh, di wut visa dañuy wax ne li ñu nekk góor jigéen fii moo tax mënatuñ dëkk ci réew mi voilà gis nga kon bunt la boo xam ni ku nekk fu nekk nii yaa ngi ci lijjanti li nga bëgg euh, lijjanti kon xoolal nekk fi di ko jooy tamit taxul affaire bi réglé mhm. ni ko boroom xam-xam ba dam waxee xam nga naan fii dafa lëndëm fii dafa xam nga lu mu wax mhm. mu ne taalal torche fii dafa lëndëm fii lëndëm taalal torche taalal nga éclairer dem sa yoon mhm. mais boo fa toogee junni at fii dafa lëndëm tam ci lëndëm bi ngay dee kon tam lii nii ñaawteef ñaawteef li moo war a wane ni nañu gën a fagaru ci sunu réew pays souverain lañ wax des peuples souverains de pays souverains ñun tam ñu tëral suñu réew li fi daggan ak li fii euh, araam ak li ñu bëgg suñu famille yi ak façon yar bi ñu fi bëgg ak valeur li ñu fi bëgg ñu tëral ko suñu réew loolu fi nekk ni ku nekk war nga ci jël sa part de responsabilité commencé ci gouvernement bi classe politique bi religieux yi sëriñ si imam yi oustaz yi éducateur jàngalekat yi euh, parent yi euh, képp koo xam ne am na koo mag war nga ko yedd taxawee ko mm-hmm. taxawaayu mag ah, association yi député yi euh, élus locaux yi ku ci nekk am nga rôle boo xam ne war nga ko jouer nga participer ko ci protéger sunu réew ci euh, ñaawteef yooyu.